bu dee bu dee lu mën a doon suñu borom noppi na ci dara mën dox si diggante bi moom li am solo rek li am solo rek moo di moo di yàlla yàlla rek mat a wut li ci lépp moo nu ko ameel te kenn ku ne la jël sa ceeb foo nekk dana fa fekk moom a ah, waaye jër te tala di di di tal di tal adduna ba tëlatoo yàlla tëlatoo àlaxira mën naa ñàkk dara jëru ko la ci am solo kay la ca gënoon kay ginnaaw noonu fàgg li li suñu borom noppi na ci ñun suñu cër adduna moo na ko yoral la ci amoon solo kay nu bañ a tal adduna te tal yàlla tal alaxira te sax ca dàkk duñu yàqal dar am na lu ma dul sëgg sa waay doon ko nettali sëñ bi sëñ bi waxoon waaye lay maanaama moo di bàyyi sa bopp yàlla du wàññi kenn dara te doy naa ci seere loolu sëñ Tuubaa bàyyi sa bopp yàlla du wàññi kenn dara te naa ci seere maanaam ba lu mooy loolu doy dig doomu aadama nag moo ñu jàpp ku jóg rek defe ne lekk naan rek moo nga war a su mbubb moo sol dañ jigéen jooju dañ ci kër ko am kër kër kër kër kër kër kër defe ne ak bànneex bànneex ak noon yi noon yi yeen noon yi dëkk ñun ñeent lañu bakkan bi dëkkum nu sunum noon la ci loolu yàlla lu neex rek la lay xiir parce que bakkan rek euh, mooy benn noon bi mu ngi nun adduna mooy benn noon bi ci des ku jóg dugg adduna rek dangay ngay defe ne adduna rek fi ne ngay nekku fi ba sax sun borom dëgg la moo ko def ci coobareem waaye la war a yëf yi tëluñu yàlla tëluñu yàlla xel jéemuñu koo xam sax adduna rek la kon adduna musiba la mooy gàllankoor bu rëy bi mooy mooy mooy moo bokk ci noon yi ñeenti noon yi. seytaane doo na ñëw seytaane li muy am am kattan bëgg lépp ñu ngi ci li mu bëgg lépp maanaam noo ngi ci kon noppal yooyu noppal nañ seytaane sunuy noon lañ. yu yoo xam ne noppal nañ seytaane ki yées ci ci ci ci mbindéef yi te jëf yàq gi nan góorgóorlu bu baax xam li xew nan xam li xewul nag ñàkk xam rek dafa nekk waaye ku xam jóg ku xam fëx fa firroo ila allah inni lakum minhu nadirun mubin lan la suñu borom lu fëx leen jëm ci yàlla maa ma man kat maa war a xupp maay seen xuppkat bu mag bi te bu xuppkat bu wér laa laa ko wax te loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg li ci lépp musiba lu ca bari ak neen la maanaam maanaam maanaam lu lu leneen lu jëmul ci yàlla neen ngay jàmm ja neen nga mooy jàmm ja da ci lépp xisaab la ak mbugal yaa ngi si yàlla musal barkib sëñ Tuubaa sant bu baax ñu suñu borom booleeg sëriñ bi sant bu baax sëriñ bi li ko war lépp def na ko digg mu borom digg moom jàmm waaye nag dina war a xam suñu bopp ñun ñooñam ñii war nañu xam suñu bu baax bu mu xamee suñu bopp